Atlanta. man ma nga house Atlanta góor si ñaa ma nga fa barki dem yow na indi kër ki na ma yàlla ak borom Touba may rek mu indi fii ba Coupe d'Afrique bi waaw kii moo nekk Turquie sama doom ji moom moo fa nekk. kan la. Ah, sama doom yow yaay sa doom sama sët Famara Diédhiou. waaw ah, waaw maa jur ndeyam. waaw xadindooy maa ko jur. waaw maam Alsaan maa ngi lay nuyu depuis États-Unis Ndumbe Pay maa ngi lay nuyu yéen ñëpp maa ngi lay nuyu bu baax Inna. bu Cheikh Ndoye maa ngi lay nuyu bu baax a baax fàttewuma kenn di nuyu Awa bu baax Awa Thiam ak Babacar ñooñu c'est pour Famara Diédhiou maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax kontaan baax waaw ak le mari de xadika le mari de xadika mm-hmm. le mari ah, moom ak Famara Diédhiou ñoo defandoo hivernal. Mhm. fii ñoo liggéeyandoo hivernal def musculation. Mhm. footing ba mu doy. Mhm. waa def course de vitesse ba am vitesse ak tout ñoo ko liggéeyandoo soog a dem. waaw ah ña nga Turquie Famara Diédhiou yàlla na la yàlla taxaw ci barke Borom Touba. góor gi si Dieng Mayoro Mayoro bul fàtte général foot. la jógee d'accord ñu ne ah. Cheikh Ndoye Red Star. la ah, nekk ah, waaw Red Star. waaw Red Star waaw Red Star mais Red division ah. mais moom moo fay capitaine actuellement. il est le capitaine d'équipe waaw ñooñu doonoo war a ñëw équipe nationale ak Famara Diédhiou. Mhm. waaw ndax bul fàtte ne Mayoro dem na ba de bi mu demee général foot rang kii moog Sadio Mané ñoom nañu jëndandoo. mais dem na ba day dem partant Sadio Mané ah, toog ci banc bi di ko xaar dama ne bul wax dañ leen war a jël bu ñu dama ne doon faa am place ah, waaw ndax ba ñuy dem mondial foofu nga toog foofu nga toog daal di mel ne Famara demul Famara demul mais ña dem mondial mënuñu ko foofa la. ba nuy dem mondial bi. waaw da ma ne noonu non non Famara sélectionné wuñ ko. waaw sélectionné wuñu ko waaw mais mais ña dem mënuñu ko. kooku c'est le choix de du noonu nag du choix nag talent ngay xool. talent ngay xool. talent ngay xool talent. talent ngay xool. Cheikh Ndoye da ngay ñëwaat. Mayoro da ngay ñëw. Famara Diédhiou da ngay ñëw. waaw yéen ñëpp ak euh, kii Traoré le mari de. non Traoré du sénégalais. waaw d' accord il n' est pas sénégalais je m' en fous <laughs> mais waaw mais sa femme est sénégalaise. waaw mais malien la moom Mali lay fubal. waaw d' waaw mais sa femme est sénégalaise. waaw di nuyu ñëpp nag Sophie ñi lay laaj laajte bari na de ndax nee nañu doonoo tëbal. Ah, waaw mercredi waaw doonoo tëbal mercredi. waaw nee nañu kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci mel ni élargie Hadji Djibi Guèye kooku mook soxnaam Ramatoulaye Ndiaye. ñooñu doonoo nekk ñoo xam ne waa Mbàkke Kajoor noonu ndaxte soxnaam Ramatulaay Njaay dafa doon koo xam ne sëtub sëñ ma sorang sorang la bu wér bëgg guy mbind bëgg sëñ Sidi Moxtaar bu wér a wér a wér moom El Hadj Jibi bu Ndangura ñu ngi koy gërëm ak Cheikh Fall rakkam ji di nuyu soxna soo xam ne elle est talentueuse elle est ñu mm-hmm. koy wax Nene Fatoumata Tall mm-hmm. Golf Sud lay xëccoo ci gaynde Macky Sall yu jigéen ñi la mais day laxas diggam xam naa ku mu taseel dina tàng ren lool lool lool moom ne ne Fatoumata Tall Haalpulaar la mais day xëccoo dafay sol pantalon jël ndiggam daal di koy laxas jël ab fuseau daal di ko ci teg bugg ci biir góor ñi di di xëqaloo ak di xëccoo fii ci Golf Sud moom lay def maa ngi koy nuyu di nuyu xaritam sooda bu baax a baax a baax li mais ñi may xaar doon ma bëri mais su commencé rek dinaa la fay lépp dinaa am ci vue mais actuellement je suis le plus suivi dans ce pays non non non non négal di nuyu Assane Bousso di nuyu Abo Mbaye depuis Paris fàttewuma ko ak Babacar Diassi bu baax a baax a baax di ko nuyu di nuyu papaam Yatma Diassi fàttewuma ko Serigne Saliou Diouf ak Penda Djigo maa ngi leen di nuyu di nuyu Yankhoba Dabo depuis Gambie Amadou Toulon Dabo ñoom Pape mbay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom El Hadj Ndiaye maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Global Textile ku ci mel ne Assane Fall di nuyu Biram Senesta Couture maa koy niiw di nuyu Tafa Sy ak Fallou Sey ñoom ña nga caaroy gaar mooy Tafa Mercerie di nuyu baax mbay si la textile kooku mënuma koo fàtte benn yoon mbay si laa textile maa ngi koy nuyu baax ak Asietu ak As si la textile maa ngi leen nuyu baax sama sang bi laay tëjee Baye Bayar Manel Kodou Ngoye le trésorier de l'État le trésorier de l'État nu ma mel moom la maam Ablaye Fall borom Bambey jub maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax bu baax waaw di nuyu Bouba Bodian nam naa lool Sophie Gueye gaawal nga ñëw Prospère xaw ma foo mën a toll mais maa ngi leen nuyu Prospère yéen ñëpp waa Caaroy géej yëpp fàttewuma kenn maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di nuyu nag Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman Serigne Abdou Kandji bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaanal Bougane Gueye sunu borom pingoom ko. ba ñëpp xale yi nag xale dañ la doon xaar nag mais en attendant loolu ñu ngi ñëw ci xaar gi la doon xaar. ñu ngi ci. mais mais en attendant ñu ngi ñëw ci xaar gi la ci kaa ci kaa ah waaw waaw waaw. waaw ah kay am kooku pour annoncer ko faaw di nga jóg. damay wax naa leen ko démb ak bërki démb. Mm. xam ma dina jafe lool man kenn du ma déglu danga may teewlu ndax li may wax mën nga ci jëlee loo xam ne ëllëg mën nga koo duggee àdduna ba génn soo ci génnee àdduna dangaa xaru soo demee di nga layoog sunu borom ndax na la góor ga waxoon na ko xanaa da nga koo déggutoon kunkande kunkande kunkande lu tol ne ay doomi soxna nekk ci réew mi naam si naam mbàkke naam ndaw naam taal naam jigo naam aaw naam njigéen naam ja ay sëriñ nanu ah naam laay ñu ngi nii sama ginnaaw seen maam nee géej randul géej randu ba keroog ci dëj bi ku ne soo xoolee géej te xam démb ak barki dem xam fa géej gi daan yem ak ni géej gi dawee di nga xam ne lii leneen la naam ndaw sëñ Muntaxa ndaw wax naa la ko ah, nee naa la dafa puus ne chauffeur bi jaaral ci kaw mu ne ko déedéet mënu ma ko ñemewu ma ko mënu daw ci ndox mu ne ko wàccal mu wàcc mu ne ko jox ma satal mu jox ko ñetti yoon ma dem mu ne ko yeesal la njàpp mu yeesal njàpp ëlbatiku jël volant bi jéggi ñooñu nekk fii kenn waxul dara ñi nga xam ne ñoom la sunu borom gën a naw ci ay yonentam Moussa ci la mu may ko pouvoir mu jël aw yatam daal di koy dóor ci géej mu xar mu jàll labloo fi raw na yow nga taxaw ne bis ba di nga xar géej. papa woo ko gerees gi ci ginaar ba tax muy jénj gu ko ëpp ngi ci xàbbon te mu ne mugg ak moom. gerees gi ci ginaar ba tax muy jénj gu ko ëpp ngi ci xàbbon te mu ne mugg ak moom. ñi la daan ñaan loo démb ak bërki démb ndax am na ci ay victimes yoo xam ne la nga diggee ñoom gisuñu ko. demal. <laughs> Ben bonsoir. waaw <laughs> oh, bonsoir Safia. Ba yaa ngi ci jàmm. ça va sant tout se passe bien. tout se passe très bien alhamdulilah. Euh, di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm Sénégal. et comme ni nga ko waxee ah. franchement ñu nekk ci inondation bi yëpp euh, ñu ngi leen di massawu metti na trop quoi parce que boo gisee image yi. franchement nelawatuñu toogatuñu di ñaan yàlla yal na ko yàlla saafaraal. di ñaan gouvernement bi tamit mu jël ay devant pour faj loolu ni mu gën a gaawee. ñi si liyu hôpitaux yi tamit ñi nga xam ne mbas bi moo leen téye ak ñi feebar ñëpp yan na leen yàlla may ñu jóg ak jàmm mun a dem defu seen soxla nu mu gën a gaawee. Euh, tey Safia damay beral yoon ak waa Derklé parce que j'ai un ami un frère ñu koy wax Ñoxor Gueye Meng Papi. Euh, El Grande nga xam ne Maroc la nekkoon. gëj a gisee. Mhm. ki may saaga ndey ñëwaat na mi ngi nii xool ah. moo may saaga ndey toujours xool. waaw ñëwaat na waaw. xam nga. Ah. mi ngi may ñu koy wax di ma saaga ndey am ah, wuyu ko meng ñu koy wax. tey bàyyi ko koy wuyu ko waaw ah, daf may saaga rek. meng papi euh, ñu koy wax euh, El Grande nga xam ne mi ngi fi actuellement en vacances ak jabaram Awa. ak waa kër ga yëpp foofu sama kër la kër maire Roxee Diop euh, sama yaay ju baax jooju yal na ko yàlla xare àjjana mooy nuyu ñi fa nekk ñëpp di nuyu ñoom David ak jabaram euh, di nuyu ñoom euh, Benoît Faye ñoom ñëpp ñu ngi foofu si Derklé ak Ndeye Sarr sama sœur bi magu Yacine Sarr ba pare am koo xam ne daf may yóbbante si père ñu koy wax Penda Ndiaye Penda Ndiaye yaayu Ami Libain waa ami Libin. na daf la bëgg. pende te yow loo wax rek noonu la. ndeysaan pende yaayu waaw ma ne nag tey loolu il faut ma yeggale ko. ndeysaan pende ba pare euh, di souhaiter tamit happy birthday sama benn jigéen muy borom Luxembourg. daane mbub kooku euh, sama jigéen ju baax la dafay fête anniversaire am ba pare di nuyu Mariane Gueye non waaw d'accord moom laay nuyu di nuyu kii il faut ma nuyu ko sama sister la ñu koy ax Mariane Gueye muy fan fans number one Benoît Diop kookoo moom Côte d'Ivoire bàyyil su may nuy sama nit ñi sa xol bi di xataraayu kii ki nga war a arrêté ngi ne le may nuyu général ak Mata ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu Sénégal bi yëpp Safia. merci beaucoup bonsoir Mata. bonsoir euh, c'est toujours un plaisir de vous rejoindre ici.